njëkk a wax leeral ko mooy il a trouvé un pays économiquement à terre les caisses e vides euh, Macky Sall ak ñooñam daanaka lu leen neex dañ dañ ko def foofee am ñu jàpp ne il a manqué d'élégance wala jàpp nga ne souci de transparence la man gëwma gëwma ay man di yi wax ay élégance républicaine man c'est pas man li ma gëm mooy la légalité républicaine ok euh, Bassirou Diomaye Faye daf ñoom fan yii dañu fay lépp xaalis bu baree bëri ba FMI ne quatre cent cinquante milliards yi ñu mujj jël soxlawuñ ko parce que dañu am état de surfinancement kon wax dëgg yàlla na xam ne am réew mu exsangue loolu wax ju yàqu la mm-hmm. cest à xam nga euh, Pastef dañoo def fukki at di def ay révélation ak i délation révélation yi ak délation yi nañ leen ko bàyyee yéen journalistes yi te ñoom ñu liggéey te ñoom ñu liggéey bu ñu gisee lu baaxut nañ ko defar. mais kon li nga li mu wax ci réew mu amul koom bi gëmoo ko. mais mais non non non d' abord bu dee Sénégal c' est un pays sous-développé d' accord mais réew moo xam ne financièrement exemple c' est tout à fait faux. parce que bu bu amoon FMI du ne 450 milliards yi mu jëlee bañ koy leb soxla wuñ ko. Hmm. parce que le le Sénégal en en état de surfinancement. Ah, on ne peut pas être en état de ba pare di wax ni le le le pays financièrement exsangue. ça hmm. maintenant je ne sais pas de quel de d'inspecteur des impôts il est bu fekkente ne c'est un économiste moom c'est une catastrophe maintenant bu dee juriste on